làmb ji ci jamono ji mi ngi indi ay combinaison yu bees yooyu sax la ñu jëm actuellement muy lu ci bëri ay combat jànq Gaston Mbengue mu Gaston production gannaaw fan yi yëpp ñu ngi doon laam-laame diggante rëg-rëg ak Sa Thiès waaye dafa mel ni que ci kàddu ki nga xam ne moom mooy Gaston production moom Gaston Mbengue nee na Sa jot na avance waaye la mu des rek mooy ci côté rëg-rëg ba tey jile waxtaanaguñu ba déggoo pour rëg-rëg daal di mën a euh, jot avance loolu mooy firndeel ne combat bi dina officiel waaye fi mu nekk ni ba tey amagul dara lu officiel ndaxte Sa Thiès jot na avance Gaston Production ñuy xaar Reug Reug ana moom fan la toll waaye tamit beneen combinaison mën nañ ko xaar diggante Bombardier ak Tapha Tine muy remake muy combat revanche bi dana amam déet wala boog dañuy jël Bombardier jox ko beneen mbër boo xamante ni xale la jeune buy yéeg wala boog dañuy defaat beneen combat 2-2 wala 3-0 boobu moom ñaanatuñu ko waaye daal dafa mel ni ki daal combat yooyu mi ngi waaj a leer rëg-rëg Sa Thiès Sa Thiès rek moo jotagum avance kii di Bombardier boobu moytul danañ ko jox Tapha waaye tamit ñu ngi wax beneen combat ci suuf muy diggante ki nga xam ne moom mooy Ama Baldé ak Gris Bordeaux ba xam Gaston Xaali Mbeng nekkul ci loolu ba tey